salaamaaleykum mbokk internet yu Dakar Buzz ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di am saa su nekk rek di janook yéen nag ñu ngi janook suñu benn maman di tudd ci turu maman madame Diop Diatou ñu koy nuyu bu baax di la ziar maman. maa ngi lay nuyu maa ngi nuyu waa dakaar Buzz yëpp di nuyu seen téléspectateurs yi ak seen euh, internet yëpp. waa tey damay def takku jàkk rek pour sama sët macha allah. sama sët bi mu ngi Paris Safiyatu Diop tàkku jàkka laa def man xewaguma defuma dara mais xale bu baax xale bu ma déggal ma yar ko bu mu amee 4 xaw ma 6 mois ba jóge fi ñuy fayal ko yóbbu ko pare mu jàngi macha allah bay pare année prochaine bu neexee yàlla mais xale bu baax xale bu yaru xale bu am at xale bu xam àddina may nañu tey comme ni ma ko waxee si bâche bi maye nañu tey lu ñu bëgg maag mañik maye nañu lu ñu bëgg mais ñu ngi koy dénk rek Mamadou Lamine Ndaw di xale bu baaxit xale bu yaru xale bu am diine suñu xel daal dal na dal na si jëkkër ji daal yal na yàlla xeeb yal na leen yàlla gën a dolli ñu gën a dem ba si kanam su fi gën a continuer jàngam yore entreprise am yàlla may ko njaboot yu barke si diggante moom ak Lamine Ndaw incha allah mais daal loolu daal laa si mën a wax daal xale bu yaru xale bu baax ñu may tey lu ñu bëgg lu ma bëgg mag sama jëkkër lu ñu bëgg sama doom bu góor moo ko jur waaw sama doom bu góor mooy taawa moo ko jur yore ko nag ah sama wujj laa maye wujj boo xam ne bu doon sama sago ma toog di wujjoog moom xam nga waaw mu ngoog xamal ma lépp lépp lépp lépp lu ma xamal su ma jaaxlee sa ba xaw a feebar sa moom laa naan fii laa bindali fii fii laa bindali pour nga xam ëllëg xamal ma lépp macha allah waaw yan nag yàlla defar jàmm rek. tey kan mooy borom këram ndax xam ngeen borom këram. Ah, Lamine Ndaw la tudd Ndaw nekk Canada. xamante nañu depuis dakaar nag macha allah ku kii dem Canada kii dem Paris ba yàlla boolewaat leen tey ji Lamine Ndaw di xale bu baax xale bu jullite macha allah waaw. tey jii ana lan ngay ñaax sa sët bi lan nga koy yabee. góorlu rek góor góorgóorlu comme ni ñu ko yàgg yàgg yabee rek góor baax na ndax daf lay dooleel mais tamit euh, pas mu yaakaar 100 pour cent si góor rek. liggéey te am na objectif boobu liggéey da ngeen koy gis sax si corridor yi incha allah dina ñëw sax day jàppale maamam di def yooyu yëpp allez débrouillade day liggéey liggéey la xam daal liggéey te si yoon boobu lañ ko teg ndax maamam dafa naan mañik dafa naan tout le temps man sama entreprise sama kii xam naa ba su ma wanee gannaaw yànn yi xam naa ne sufi sufi dina ko mën a diriger kon nga xam ne c'est une femme de principe te xale la may macha allah daal waaw waa di sant yéen ñëpp nag di sant tey nag defuma ba su may def incha allah yéen ñii laay woowaat tey xewuma parce que moom mu ngi ñëw fin d'année incha allah bugguma joxe dat bi mais mu ngi ñëw bu ñëwee si laay koy xewal defal ko réception bu neexee yàlla mais maa ngi sant ñëpp ndax ku suba moom xam naa damay téléphone dañ may téléphoné ba sonn ndax ku ko yëg ma bâche bi da ngay xew ma ne leen xewuma maa ngi sant ñëpp ñëpp ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm sama njëkkee di gërëm sama sœur di gërëm sama jëkkër nag moo ma dooleel man Diop yàlla na ko fi yàlla bàyyi yàlla bu seytaane xas sama diggante ak moom nu ma mel man kenn xamuma ndax macha allah daal du génn kenn xamuma macha allah manqué wu ma dara ndax moom jooyu ma dara ni moom li gijéen naan nammu ma dara daal loolu ay terme xale la sax waaye naa ko wax tey nammu ma dara moom lay souhaité wu gërëm bi di gërëm samay waajur di gërëm sama yaay sama papa mi si àllaaxira yal na suuf ayof si kawam di gërëm sama yaay fi nekk yal fan yi yokk di gërëm samay njëkke samay sœur samay frère ak ñëpp daal famille Diop famille saane famille fay ñëpp maa ngi leen di gërëm macha allah. lan ngay ana nga mën a def ci ki nga xamante mooy yaayu xale bu jigéen bi te nekk sa goro. waa xam nga jur doom rek jox la ko rek doy na jur doom rek jox la ko doy na waaw mu nga États-Unis macha allah dara ñaawul boobu ba léegi dara ñaaw xam nga ndax boo yoroon sa doom di gestu parce que doom doom la rek tamit. man sama doom bu góor moo ko jur mais moom mooy gijeen doom doom la rek boo yoron sa doom di gestu xëy na yooyu yëpp tey jii du lii lii yëpp du am daal tey te xëy na comme tamit bu takk jotoon ma dem ma dem toog croiser les croiser les bras mais dara ñaawul daal macha allah waaw